بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala nu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waamim xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si at nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim ci sunu bindab tafsir alquran alazim bu ñu fàttalikoo borom baa ngi defaloon tawfiq ba ñu yegg si woon ci suratul fatxi ca laayey fukkeel muy fi doon leeral sulxul xudaybiya ma fàttaliwaat suma bopp fàttali mbokk yi ni alquran day mbokk yi téere bu tedd la ay wax du ko fare kaw ndax mooy waxi sunu borom xolub julit saabu sellee du suur ci alquran ak lu mu ko jàng-jàng wax joo xam ne dañ koy baam lu toll ni li ñuy baamtu alquran te du mos a sàppi loola war naa tax nit ñi xam ni mbir mi lëfa ngi ci mboolem lu doomu aadama yi niit ci dunduk àddinaam wala ci àllaaxiraam bu yëree alquran fekk ko ca kon téere bi lëfa ngi ci téere boo xam ne boo koy jàng da ngay sentir luy nux nuxi ci sa xol loo xamut lu mu dana tax nga yëg ni wax jii du waxi neen téere boo xam ne day topp nit ki di ko teral ba yowal qiyaam mu man koo teral ci tàbbim àjjana ci tinduk ramb képp koo xam ni jàngkatu alquran la wala di ko jàngale wala di dimbale ñay jàng ak di ko jàng loola mën nay sabab yowmal qiyaam alquran tinu ko nan la koy tinoo mooy alquran day wax sunu borom ah kii moom tin ma ci moom ci ma bañ a tàbbi sawara ndax moom kat doon na ma jàng waxtu guddi ak waxtu bëccëg doon ma toppatoo te di sonn ci man kon sunu borom kii moom tin ma ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni sunu borom daal di tin waa joojee tàbbal ko àjjana ci sababu tinuk alquran téere bi de mbokk yi ci la yàlla yëkkatee ay nit ba ñu nekk ay sang te fekk ñu doodi woon lañ ci la yàlla y wàccee ay nit ba ñu suufee te fekk ñu amoon ab dayo lañ kon nag nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal nu alquran nekk suñu lolli xol laabal suñuy xol ci naafiq ak kufr ak shirk waaye leeral suñu xol bil imaani wal yaqiini wa zuhdi wa taqwa wal wara bu ñu fàttalikoo sunu bind bi weesu ñoo ngi doon waxtaanee sulxul xudaybiya waxoon naa leen sulxul xudaybiya ak njàngale ma ca rot nga xam ni njàngalem yonent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te historiens yi daal di koy nettali muy xew-xew yooya nga xam ni moo xewoon moo tax bind bi passé ma ñu la darsu tafsir la darsu xayaat saxaaba la tey nag insha allah aaya ca wàcc moom la ñuy tafsir muy fi sunu borom di waxee subhanahu wa taala audu billahi min alsheitan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كان الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما laa yooyu incha allah mooy nekk sunu bindab tey bu ñu fàttalikoo ci dars bi weesu laaya yi wala lenn ci laaya yi jàngoon nañ ko waaye la doxoon sunu digganteeg man koo tafsir mooy xata ayu waxtu ngir leeral guñ doon leeral sulxul xudaybiya moo tax may dars bi paase tafsir la xayatu saxaaba la ndax sulxul xudaybiya ci boppam mufassiru ni dañ koo nettali waaye loolu liggéeyib muarrixuun yi la mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy toppatoo ya xewoon loolu da lay wan ni shariatul islaamiya ci boppam yu muy jëgaane feneen amu ko ndax am na ay boroom yi xam-xam yoo xam ne yàlla moo leen tàggat la doon xew ñoom taalif nañ ko ci ay téere am na ñoo xamante ni alquran ja doon wàcc ak xeeti xam-xam taalif nañ ko am ñu taalif ci yeneen rahmatullahi alayhim ajmain kon tey ginnaaw bu ngeen seetloo ni dars bi weesu xamoon ngeen lan mooy sulxul xudaybiya ak la xewoon yonent bi jóg bëgg a umra ji ngànnaa yu wut tooñut kenn xeex taxu koo jóg waaye ay noonam dox digganteem ak màkka ak bam yabalee Othman ak ya ca xew ak jaayanteeg saxaaba ya taxta shajara ba laqad radiyallahu anil muminina wàcc di bopp xisib bi ak la nga xamante ni moo doxoon ci ak solxu digganteem ak gaa ya doon ñëw ak ya nga xamante ni moom lañ siñante ak fañ mujj yooyu yëpp jàpp naa ni leeroon na ci bind bi weesu sunu boroom subhanahu wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko inna alladina gaa yooyee nga xam ni yubaayi'uunaka ñoo ngi jaayante ak yow innama yubayiuuna allah nañu yëg ni yàlla ci boppam la ñuy jaayanteel loolu nag mbokk yi wax la ju rëy rëy rëy même bu rëy ci ñun daa fekk sunu doyadi la waaye ñam wàccoon ca ñoom moom rëy na ca ñoom la koy firndeel mooy yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim man ko teg ca seen kawi loxo loolu nag du ñu def ni achaira yi def wala mu'tazila yi def di kuréel yu sànk yooyee boo nee yadullahi loxol yàlla ñu ne kàttanalu yàlla ndax boo nee loxo loxo day nuroo keneen déedéet ahlu sunnati wal jamaa ahlul aqidati saxiixa dafa bokk ci seen pas-pas lépp luñ saxalal yàlla nañ ko ko saxalal lu yàlla ni moom saxalal na ko boppam wala yonent bi saxalal ko ci ay melokaan te mu wér loola dañ ko koy saxalal loxol yàlla loxol yàlla la nam mel ak ndax niroo naag bi yeeg yooyu yëpp sa yoon nekku ci waaye loxo loxo la te loola mooy pas-pas ahlu sunnati wal jamaa ndax léegi tey boo dee daw loxo ba tax nga ni kàttan la kon da nga naan su ma nee loxo day nuroog doomu aadama waaw boo nee kàttan de xanaa du nuroog doomu aadama ndax doomu aadama moom it am na kàttan kon léeg-léeg yëf yi ngay daw ak la ngay tàbbi daanaka kiif kiif lay doon moo tax imaamu malik ci tafsir aaya jooju ñu wax summa stawa ala al arsh day wax ni ayatu sifaat amirruha kama jaat te loolu du moom dong moo kon wax ci magi salaf yi aay yi melal suñ borom bàyyi leen ko nam mel loxol yàlla ñu ne loxol yàlla moo tax العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي صاحب تيسير الكريم الرحمن برم تفسير بو أمثل بوبو داني يد الله فوق أيديهم من نيوم نيوني دي جاين تك يوننت بي نانو يك ني جامونو بي ني جاب لوخو يوننت بي ميغي ملني يالا مو تاخاو ني جوخ لوخو مام كيف كيف لا امول ديفيرانس ndax yàlla loolu la leen wax yadullahi fawqa aydihim ndax jaayante ga ni mu doon demee mooy comme ni ngeen ko gisee ci dars bi passé Othman faatu na te fekk faatuwul xam nga loolu foo information la waaw mbokk yi foofu ndax du tegtal bu rëy bu ñuy xamal yonent bi xamul kumpa saa boo déggatee benn doomu aadama buñ naan moom xam na kumpa wala xam na luy xew walay demee noonu léegi mbokk yi yonent bi ak ni mu fooree ca yàlla xabaarab Othman ak Othman ni mu fooree ci yonent bi ñu ni ko faatu na mu jaaxle mer woo saxaaba yi ni kaay leen ñu jaayante suñ bakkan yi na ca des saxaaba yi ñëw di jaayante kenn par kenn ndekete information bi wéru te xamu ci dara ndekete laa yaalam man fi samawati wal ardi alxayba illa allah kumpa moom yàlla moo ko xam yonent bi lam ca xam yàlla moo ko koy xamal waaw billahi alayka bu dee yonent bi ak ni mu fooree ci yàlla jibril di ko dikkal waxtu wu nekk su dee moom kumpa lu ne lu bari xamu ko ca yàllaa koy xamal lam ko xamal waa fa kay fa ka benn waay boo xamante ni daa lekk ba rek rek raayu kollam te naan xam na nangam ak nangam ak nangam ci xeeti kumpa yi dama jàpp ne ñàkk fayda dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax nit di ko gëm waaye ñàkk jom dëgg dëgg dëgg moo tax nit di wax loola ndax wa ma yadruna ayyaana yubaasuun kañ lay dee kañ lay dekk xamuñ ko kon borom bi subhanahu wa taala mu ni yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim mi ngi tege ci seen kaw loxo loolu mooy lan mooy jamono bi ñuy jaayanteeg yonent bi saa salaam mi ngi mel ni yàlla lañ doon jaayanteel saxaaba yi ñëw di jaayante kenn par kenn ku ñëw rek daal di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ doon jaayante borom xam-xam yi dañ caa jooyoo ñenn ñi nee nañ dañuy jaayante ci nañ faatu moom suñu bakkan na fi des ñenn ñi neen dañuy jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko loolu woo rek ñu fekk si la ci kenn ku ci nekk ci borom xam-xam wax na waaye ala kulli xaal waxee la muy bari bari bari ñoo bokk fenn fun jëm mooy lan doon jaayante mooy comme Ousmane faatu na moom ñun doyatun dunu dara ca lañ doon jaayante saxaaba yi ñëw kenn ku ci nekk di jaayanteeg moom jaayante ga ku ñekk day ñëw jox ko loxo gis ngeen saxaaw baaxu màgg ba ma leen waxoon salamata ibnil akwa moom gëm ngëm-ngëm gu foor dafa jaayanteeg yonent bi ñetti yoon sallallahu alayhi wa sallam mbooloom mu njëkk ma mu bërax lu dugg ca biir jaayante mbooloom ñaareel bu bërax lu dugg ca biir mbooloom ñetteel ma tamit mu def ko ngir wane ni moom mii lii muy def lu ko ñor la moo tax radiallahu anhu wa ani sahabati ajmain ñooñee doon jaayante nag sunu borom mu ni yadullahi loxol yàlla fawka fawqo aydihim man ko teg ci seen kaw loxo kon loolu looy la faman nakasa gis nga ku fecc kóllëre li nga jaayante da nga koy defi ba nopp ba yàlla gërëm la ci faman nakasa ku dellu gannaaw fa innama yankusu ala nafsi na yëg ni dellu gannaaw ga ci kawam lay këpp te buy këpp mbuga lay këpp ci kawam gis nga bokk na ci li gën a garaaw mooy nit ki jaayanteeg boroomam ci def dara ba noppi ba ko ba ca topp mooy jaayanteeg sa mbokkum julit ci def dara ba noppi ba ko ñaari mbokk yi benn bu ci nekk bu garaaw la waman awfa képp koo xam ni matal na bima ahada alayhu llah ci li nga xam ni moom la fasante ak sun boroom fasanutihi danañ ko jox ajran aziman pay gu rëy rëy rëy rëy koo xam ni mënee su koo gam-gam le moo tax ñu ne la rëy na mu jeex kon mbokk yi yàlla dafa bëgg ab julit su diggantee dara wala mu fasante ak kóllëre ak mbokkum julitam na matal lam def yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla mu ni awfu bil uqud li ngeen di fasante na ngeen koy matal wa awfu dee leen matal bi ahdillahi ci déyante yéen déyalante ngir yàlla tax wala tanqudul aymaana baada tawkidiha gis nga de gis nga saa boo feccee kollare lu rëy rëy rëy la lay yàqal gis nga sulxul xudaybiya bi yëf yi amee yàlla dafa garantil saxaaba yi ni leen bu ngeen matalee li ngeen diggante ak yàlla yool bu rëy rëy rëy di ngeen ko am waaye ku fecc kóllëre musibaay këpp ci sa kaw moo tax boo seetloo saxaaba yi ña ca jotoon a juum juum te bu mel nii te yàlla jéggal leen nga xam ne ñu woote xare demoo gisoon ngeen ca Kaab ibni Malik waaye tamit li nga xamante ni yonent bi da koo jaayanteeg saxaaba yi ci nañ ko nëbb nga feeñal ko def nga musiba ju rëy moo tax yàlla mu ne inna allaha yamurukum an tuaddul amanat ila ahliha saa boo digganteeg nit wala nga fasanteeg nit yàlla mu ne la ngeen diggante la ngeen fasante na nga ko matal soo digganteeg nit wala nga fasante ak nit nga war ko wala nga feeñal secret bu wërta woon a feeñ def nga bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy saa boo fasanteeg nit rawatina ci buntu sekkare nag nga xam ne ñun moom su mu waay daanaka tey moom ñu ci bari ay lantinoor lañ booy xel rek mu yuree surtout ci buntu boobu boo gisee ma ci insister mooy moo ëpp lu muy faral di am gis nga ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ca fatxu xaybar te xaybar moo topp ci qissa bii may nettali nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xaybar dañoo jam saadu ibni muaad biñ jamee saadu ibni muaad ci sidit sidit gi ni fakkit dagg muy sutti deret ju bari ba ñàkk ci deret lu bari saad daal di ñaan yàlla ni yow yàlla dimbale ma même bu ma naree faatu balaa may faatu moom dimbale ma sama xol na sedd ci ñu gis jullit ñi caw yéefar yi naafeq yeeg yahuud yi ba seen xol sedd yàlla nangul ko ñaan nga bi ñu jekkoo yahud yi yonent bi daal di bégalee saad ni ko yow waxal loo àtte rek noonu la ñuy àttee juif yi juif yaa ngi taxaw di xujj seen bët yi rek di xaar dee yonent bi ne saad waxal bi koy juif yi yégee ñu ne ah ñun tey ñoo seeti abu lubaaba abu lubaaba ci jullit ñi la bokkoon waaye seen xarit la woon parce que am na yuñ séq daal noonu la nekk jullit saxaaba bu baax waaye am na yuñ séq juif yi daal di dem gis abu lubaaba ci pegg ni ko waaw ñun de yonent bi nee na nañ jébbalu ci saad lu mu wax rek ñu xam ne loolu la yàlla wax loo ci xam al abu bu lubaaba ni nii xam ngeen loolu mooy la mooy tey ngeen dee yéen ñëpp abu lubaaba moom loolu waxul dara fekk yent baa ngi taxaw gaa ngi taxaw muy waa loo ci xam mu ni nii loolu mooy tey tey lañ leen di ndax juif yi xamuñu woon lan la saadu nar a def abu lu baaba daal dinay siiwal kon secret bi yonent bi xam nga juum na foofu bi xabaar bi jàllee abu lubaaba daal di yëg ni hee man de def naa xay man siiwal naa lu ma warta siiwal de waaye mbokk yi xool saxaaba ya nañ baaxee xam ngeen nu mu defar daa dem ca marché ba jëndub buum ñëw ci poto jàkka ji yeew fa boppam ni man nit ku bon la man ku ma fekk may siiwal secret bi yonent bi man war naa yàlla war naa yonent bi man la ma diggante woon ak yonent bi matalagu ma ko gis nga fii ma yeew sama bopp fi laa yeew sama bopp ba ma dee wala yàlla wax ci man yonent bi romb ko tisbaar julli ji bàyyi ko fa tàkkusaan mu julli ji bàyyi ko fa ah comme moo wax ni tey xaar yàlla wax ci moom ñoom ngëm-ngëm la ñu amoon bu dëgër dëgër abul lu baba fa la nekk te yàlla xam ngeen léeg-léeg xabaar yi di am mu toog nag test jullit ñi bàyyi ba affaire bi jaaxal ñépp mu doog a def intervention yàlla daal di wàcce benn aaya daal ni jéggal naa ko de waaye yaa ayuha alladina amanu yi ñi gëm yàlla laa taxuunu allaha wa rasulahu bu leen worati yàlla ak yonenteem wa taxuunu amaanaatikum ngeen di war li nga xam ne da ngeen koo fasante gars yi ne abou lubaab jeex na yeewi sa bopp mu ne du ma yeewee ko yonent bi kay moo ma yeewi kon ma xam ne fii laa nar a dee tey bu ma tekkiwul du ma tekkee mbokk yi ñëw ni ko dañ lay tekki mu ni déedéet pour sama xol sedd na yonent bi ñëw tekkil ma ci loxol bu tedd ma xam ni man ju naa njuumte bu rëy ba ko yonent bu yégee ca la waaxu ñëw tekki ko allahu akbar mbokk yi ñooñu ñooñu ñeneen lañ ñii dimension bi ñu doon dund ci iman dafa kawe lool waaye loolu da lay wan ni kon nekkati ab julit su fasantee kóllëre ak yàlla akub yonenteem du ko fecc gis nga soo fasanteeg sa mbokkum julit kóllëre nga fecc kóllëre ga balaa ngaa faatu yàlla wan la ko fii ci àddina yàgg naa yéen wax ni am na xeeti bàkkaar yoo xam ne yàlla du ko xaar ba àllaaxira léegi da koy da la koy mbugalee fii gis nga ab yéefar yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam même yéefar soo siñanteeg ma xam nga ci lislaam benn yéefar mën naa ñëw mu ne man dugguma ci lislaam waaye nag du ma xeex lislaam du ma jàppale kuy xeex lislaam te bu ngeen waxee galak muy jizya muy impôt dinaa ko joxe xam nga jullit boobu sañatoo ko dóor même booy xeex sañoo koo laal te jullit ñee ko war a couverture garde ko yonent bi nee na yéefar bu mel noonu nga fasanteeg moom ni ko duma la rey ba pare yonent bi nee na même boo ko reyee donte yéefar la yàlla dootul nangu sa julli du farata du naafi la te bala laa bàyyi tàbbal la sa war te kooku yéefar la fa kay fa ka ab jullit boo ko waree ko gis nga de moo tax kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni fa man nakasa ku war wala nga fecc fa innama yankusu ala nafsi sa kaw lay këpp waaye wa man awfa bima ahada alayhu allah ku matal li nga xam ne moom la digganteeg suñu borom fa sa yuti ajran azima moo tax saxaaba ya ndeysaan ñépp a matal lu mu des benn waay benn waay joo xam ni sum waay taal ku nar a alku gis nga wa man yurid allahu fitnatahu falan tamlika la min lahu min allahi shay'a kaay jaayante mu naa man talumaay jaayante sama gileem gu xonq gëréer lay wër man allahu akbar moom moo tax moom rek moo ca alku saxaaba yëpp jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne laqad radiyallahu kontaan naa ci yéen ñëpp allahu akbar xoolal aaya jooju laqad radiyallahu anil muminin yéen ñi ñëpp tey kontaan naa ci yéen ñaata nit lañ woon ñaata nit lañ woon waa bayaatu sajara ah yéen xanaa da ngeen lekk bopp jën moo tax ngeen di fàtte kii nee na mille lan 1400 1400 mooy ñaata mooy junni ak ñeenti téeméer moo ne ma wax dëgg de yore dinañ la neexal bu soobee yow yaakaar ne paa yi wax na dëgg de junni nit lañu woon ak ñeenti téeméer jaabir ibni abdillah nee na junni nit lañu woon ak ñeenti téeméer yàlla mu ne yéen junni nit yeeg ñeenti téeméer yépp kontaan naa ci yéen allahu akbar moo tax yonente mu ne laa yaliju naara rajulun baayaa taxta shajara xaw ma ku ci bokkut woon de waaye ña fekkee woon ron keppaar ga ñépp ay tàbbi àjjana ah waaw kon boo déggee ñu naan ay asro basro ba jana ñii dinañ tàbbi àjjana ñee nga yaakaar ne mbooloo ma dañoo tuuti xanaa nga fàtte junni booba ak ñeenti téeméer ya junni nit mille quatre cent personnes yàlla mu ni yéen ñépp kontaan naa ci yéen yonent bi ni yéen ñépp da ngeen tàbbi àjjana allahu akbar mbokk yi lan moo gën a neex nit kiy dund faatoogul xamoo ci loo war a mujj sa dund jeex a gut sa mujjantal ñëw a gut war nga fee aji war nga fee julli war nga fee jihaad war nga fee takk soxna takkaat fi soxna def fi lii def fi laa waaye yooyu yëpp rek moom égal boo dee tàbbi àjjana mbokk yi loolu neex na de yow daal yaa ngi nii moom bu yeboo nag booy jaay jaayal booy commerce commercial booy perte pertal booy bay bayal boo amee tool yi tàndarma defal yow daal looy liggéey liggéey ko waaye daal égal d'état bi àjjana moo tax borom bi mu ni ah kontaan naa ci yéen sunu borom subhanahu wa taala mu ni képp koo xamante ni war na day na yëg ni war nga ci kawam lay këppwaat waaye ku matal nag dinaa ko fay tiyaaba réy réy réy sunu borom mu ni sa yaqulu laka dina la wax almuxallafuun gaa ya nga xamante ni dañoo tardé woon dañoo tardé tardelu loolu lay tekki muxallafuun mooy tardé tardelu xam ngeen ni tardé ak tardé tardelu bokkul ndax tardé mën naa bañ a nekk coobarey nit ki waaye tardé tardelu borooma ko tey lu tax ma tekkee ko tardé tardelu parce que lii naa fekk yaa ko defoon sa yaqulu lak sunu borom nee na dana la wax almuxallafuuna ña tardé tardelu woon min al aarabi ca ña nga xamante ni ñooy ñenn ca waa dëkk ba kaw kaw yaag ñenn naafiq yaag yu demee noonu ña ngay lay naan sagalat naa ñu ne dañoo occupé woon sagalat naa dañoo tënkoon am waalu naa suñu alal ji daa fekkoon tool yi waaj a ñor ñuy defar defaraat jekk-jekkal bañ mu yàqu wa ahlu naa kee naan ñun dey sama jabar daa feebaroon kii ñëw naan man de sama soxna ma doon am doom kenn ku ci nekk seet lay wu jub daal di ñëw lay ko naafeq yi noonu la ñuy faral di def gis ngeen ca xisab kaab ba defe naa kaab am na ñu àndaloon tardé ñu bari kii ñëw naan sama tool bee doon waaj a yàqu kii naan nekkuma fi woon kii naan sama soxna doon am doom maanaam daal ku dikk fenu fen dem rek saxaaba yi duñ def loolu naafeq te xam ngeen bu ne naafeq saxaaba yi bokkuñ ca kenn ku fen aw fen rek yonent bi ni ko yàlla na la yàlla jéggal demal nekk dañuy fen ñoom ñëpp ba mu des ñetti nit ñetti nit ñooñu ñu ni sumu waay bu dee fen mooy tax nit ki du mucc kon tey ñun duñ mucc nan bañ a nañ bañ a fen kaab ca la bokkoon bu dee fen mooy tax nit mucc tey du ma mucc bu dee wax dëgg mooy tax nga dugg kon tey ma dugg na rubba waaye dugg na ne rubba ndax juróom fukki fan julli ñeeg yonent bi embargo ko yàlla wàcc ay aaya laqad taaba allahu ala nabi wal muminin yàlla baal na la yow yonent bi baalaale gaa yooyee wa ala salaatati alladina xullifu gis nga bi lii amee gaa yi commencé de saxalat naa am wàllu na waxlu na kii naan sama tool baag sama tooli tàndarma jaag sama nangam jaag kii naan sama njaboot gaag fastaghfir lana jéggalul nu yàlla waaye ñun kat waroon nañoo ñëw fekk dañuy kàcci rek yàlla ne yaquluuna ña ngay wax bi alsinatihim ca seen làmmeñ ya maa laysa fi qulubihim loo xam ne dëgguwul ca seen xol ya naafiq noonu lay def moo tax gis nga am naafiq moo gaaw ci nax julit ah yow koo xam ni sum waay da ngay wax ak moom mu la billahi wallahi tallahi su ma la nammee nax yàlla naa ñàkk sama yaay yàlla yow da ngay tiit sax li muy wax ndekete day fen di dem rek xam nga naafiq loolu du problème am naafiq loolu du problème am de maanaam billahi wallahi tallahi ma ñàkk sama day comme noonu koy olof yi waxee noonu naafiq gis nga loolu fi ne wax ko ak jënd glace njar cim soow naan la boole yemale du dara ci moom moo taxit moo la mën a nax sunu borom mu ni naafeq yi dañuy wax naan loo xam ne ci seen xol ya maa laysa fi qulubihim làmmiñ ya la ñuy wax lu nekkul ci seen xol ya sunu borom mu ni qul wax leen ni leen fa man yamliku lakum kan moo leen mënal dara min allahi fa yàlla kan moo man ci yéen dara shay an dara dara dara ku man ci yéen dara in araada bikum durran kan moo leen mënal dara bu yàlla nammee def ci yéen musiba aw wala boog araada bikum nafaan bu yàlla nammee indi njariñ ci yéen yaakaar ngeen ni am na kenn ku ko mën a dindi déedéet bal sunu borom mu ni li am kay mooy kaan allahu yàlla di nekk na bi maa taamoo li ngeen def xabiir ku ci dañ kumpa la xam na lépp xabiira sunu borom mu ni bal kaan allahu bi maa taamaluuna xabiira li ngeen def yàlla mu ni lépp xam na ko mooy da ngeen di kàcc jullit ñi ngeen di nax ak yonent bi waaye yàlla moom mooy xamal yonent bi ni ko ñii liñ wax dëgguwut gis nga naafeq yi ñu solo lañ ñoon yonent bi parce que xam nga problème bi mooy naafeq bi day ñëw cëkkal tubayam guddal sikkimam ah te socc boo xamante nii ma nga toll ni innama ah fu jullit ñu dugg mu dugg fa bu ñuy wax sa waay muy muy muy fëgg dënn ka nangam fekk sumu waay gëmu ca daara daara ci li muy wax daara la ca gëmu moo tax gis nga naafeq mbokk yi ku garaaw la est-ce que xam ngeen tey lu tal ni li naafeq doon liggéey ci daaw bi yonent bi di ko yàq triple am ñettam naafeq yaa ngi ko yàqal lislaam a yow loo yaakaar yéefar yi nga xam dañuy tër ay stratégie seet benn jullit jaarale ko ci moom dugg ci jullit ñi da ngaa kan loolu jullit bu imaanam jaral dara dana ko nangu déedéet loolu naafeq rek ko mën a nangu wa kasaalika nag wa kadalika gis nga seytaane yi di ñu topp léeg-léeg bu ñu bëggee jaar ci benn julit mën nañoo jaar ci naafeq ab julit egsi ci sa kaw loolu la loolu la garab ga doon wax bañ ne ko garab yow loo doon xullee bañ gor la mu ni sama mbokk moo nangoo ànd ak saat noonu ñu daan na loolu leer sama sama sama ga- sama mbokk moo ànd ak sama noon ba ma daanu jullit boo gis mu daanu rek fekk na mbokk ma ànd ak noonam pour wax ko yoon wi loolu mooy lan xam ngeen ni weñ gii nekk ci sémmiñ bu doon moom dong garab du daanu geneen garab moo nagu ñu gor ko def ko bant dugal ko ci biir weñ gi mu doog a mën a daaneel garabu jàmbur moo tax mu ni sama mbokk ànd ak saat noonu ma doog a daanu noonu la ñuy def nag tey ci jullit la ñuy jaar def ko escalier joggi ci ndiggam pour faagaagal ab jullit moo tax it loo ci gis xam ngeen ni am réew moo xam ni dafay fas yéenee tiire ay missile ci réewam jàmbur amul fu mu mën a taxaw fu dul jaar ci kaw réewam am jullit jullit ba nangu ko loolu loolu lu ngeen koy tuddee lan ngeen ko mën a tuddee ay jullit yoo xam ne rukkaan sujjadan masajid ya jawaami ya daaray alquran ya ne fa màgget yoo xamante ni am nañ juróom-ñett fukki at juróom-ñeent fukki at di jaamu yàlla kële jóge fële nar leen a bombardé amul fu mu def escale fu dul ci sam réew nga nangu ko loo ko mën a tuddee lu dul lii man xaw ma loola man kese wa kadalika taqisuuna ma ma gayra zalik lu dul loolu tamit natt leen ko ca moo tax naafeq yi sunu borom ni li ñuy wax gëmuñ ci dara waaye yàlla moom bi maa taamalu li ngeen def xabiira yàlla mu ni xam na ko de bal li am mooy xam nga da ngeen a ñëw naan yonente bi lii laag saxalat naa am wàllu ahum ahlu naa sunu borom mu ni dëgg de bal lii dëgg li am mooy zanantum da ngeen a foogoon ni an lan yanqaliba rasul yonent bi du dellu si wal muminuuna ak ñi gëm yàlla ila ahlihim ca seen njaboot ga abadan ba faw loolu mooy lan yonent bi dañu kaay leen jaayante naafeq yi commencé rocceeku ah hé sam waaye sañ jaayante gi nañ ko xool kat yow ñu ngi jaayante ak yonent bi kaay la ñu xeexi ñun yoruñu ay jaasi ñun armé wuñu préparé wuñu nar a dem waa màkka niñ toll naafeq yi rocceeku ndànk dem seen yoon lan moo tax ñu rocceeku parce que dañoo yaakaaroon ni bu jullit ñi àggee ca màkka waa màkka dina leen faagaagal ba ñu dee ñoom ñépp ñu ne ñun moom buñ ci naree dee toogiwaat suñ seen ya bal li am mooy zanantum da ngeen a yaakaaroon ni an lan yanqaliba rasul yonent bi du dellu siwaat wal muminuuna ak ñi gëm yàlla ila ahlihim ci seen njaboot ga abadan ba faw wa zuyyina dalika fi qulubikum shaytaane taaral loolu ci seen xol yi ñu taaral loolu seen xol yi wa zanantum ngeen njortu ci yàlla zanna saw i njortu bu bon amul lu ngeen di njortu ci yàlla lu dul yàlla bàyyi leen ëffal leen ca yéefare ñu faagaagal leen ba ngeen jeex sunu borom mu ni ah wa kuntum ngeen nekk xawman aw nit ñoo xam ni buuraa ñu alku lañ ngeen ay nit yu alku ngeen yu sànku ngeen ndax njort bu bon bi ngeen di njort ci yàlla ab julit waru koo njort ci suñu borom ndax julit dafa war a rafet njort ci borom subhanahu wa taala lii moo tax gis nga léeg-léeg benn affaire am su waay nga gis naafeq yi moo tax borom bi subhanahu wa taala dafay nettali ci alxuraan naafeq yi sawaruñ alxuraan wàcc alxuraan day xaawi sutura de suratul qital yéeneen koy fàttaliku ci biir weeru koor bi dañ ko doon tuddee suratul faadaxa saar wi xaawi sutura xam nga lu tax suratul qital suratul munafiqun suratul nisa suratul anfal gis nga ñetti saar yii dafa futti naafiq yi ba ñu desituba yi neen moo tax yàlla mu ni yaxdaru lmunafiquuna an tunazzala alayhim suura naafiq yi ñoom dañuy bugguñu mukk alquran wàcc ndax saa bu alquran wàccee rek seen sutura lay xaaw yi yàlla na leen isa raaytum gis nga boo leen gisee tuajibuka ajsaamuhum hey seen jëmm yi da lay yéem danañ ko jékki-jékkal ba nga ni kii moom sa waay day fanaane naafila wa in yaqulu bu ñu waxee tasmaa li qawlihim seen kaddu ya dañ koy daas ba mu ñëw di paaka ah yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim kaannahum xushub musannada koo ci seen muy dëgër dëgër lu yàlla mu ni moog bant bu ñu wéer ci miir ñoo bokk yam booy bu max muy daanu yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim yuub guñ dégg rek jàpp nañu ci seen kaw la jëm si humul aduwu suñu borom ni ñoom ñooy seen noonu nag moo tax ma ne la naafeq li mën a yàqal jullit yéefar mënu ko humul aduw hum al aduw alif ak laam ji lil maarifa maanaam bu ñuy wax noon tigi loolu làkkinu arab la bu ñuy wax noon tigi tigi tigi tigi kooku la parce que koo koy dugg ak yow ñuy réunion mbilum jullit ñi mu fekkee ko su paree gën dem wax ko yéefar yi kooku yéefar ba ñëwul mën naa xam say information déedéet humul adu gis nga tey jii ma wax leen ko nag bis ni ki tey gis nga noonu lislaam yi bokk na ci technique yi ñuy def dañuy jël benn waay bu jóge fële ci réew yu xonq ya ñu yóbbu ko ci réewi arab yi yi nga xam dañuy jàng mu jàng arab ba ni xar jàng alquran xam lépp fekk gëmu ci dara dina dégg làkk bi kon mën naa traduire dina dugg leen teg julli ñu dina xam seen point fa- fort xam seen point faible nekk ab borom xam-xam sax man di bind di tasaare ci buntu boobu ci lay yàqaale gis nga yii yépp jullit ñi xamuñ ko tey dëgg la nag doo def loo gis ñaaw ci njort waaye bu ñaaw njortu araamee ma ni ñaw njort dagan na gis nga ñaari baat yooyu ñaaw njort bu araamee ñaw njort dagan na ñaaw njort la ñuy tere mooy loo gis rek ne xaj baa ngoog déedéet waaye ñaw njort mooy bu la kenn nax foo toll rek di la am ak seetlu di la am basiira di seetlu di seetantal tey tey tey tekkaaral ndax boo yeewul rek ñu yeewu la borom bi subhanahu wa taala mu ni wa man lam yumin billah képp ku gëmul yàlla wa rasulihi ak ab yonenteem te ñàkk gëm yàlla ak ab yonenteem mënta paase yàlla ak ab yonenteem woote nga bañ a wuy ji mu ni fa inna ñun yàlla day aatadna waajal nañ lil kaafirina yéefari sairan mbugal mu méttee métti yàlla borom bi boo leen ci musal loolu mooy tëkk boo xam day jëm ci naafeq yi ke leen jiite woon ca madina mooy abdullahi ibni ubay ibni salul nga xam ni daanaka xeeti giraawali gu nekk def na ko te ba tey xam ngeen ni naafeq tey la gën a bari tey moom tey la naafeq gën a bari moom moo tax damay wax ni naafeq ya doon ya doon nen ci jamono yonent bi tey de moom tas tañ nañ cuuj yu baree baree baree bari tey àddina bi dafa fees dal ak ay jullit yoo xam daara lañ gëmul ci li ñuy wax dara yàlla xam na ni alquran gëmun ca dara buxaari gëmun ca tus muslim gëmun ca dara yàlla nee na ak Jean Paul nee na ñoo bokk yam ci ñoom amul mën nañuy nag nag masque woo li liñ naan sol mbubbum lislaam waaye nag yàlla moo def defal aji gëm yàlla tawfiq gis nga sellal sellal mbokk yi lu garaaw la gis nga sellal képp ku koy def rek yàlla moo lay détecteel naafiq yi maanaam yàlla ci boppam moo lay may basira nga mën a xàmmee naafiq yi wallaay mën ngaa gis nit sib so nag te doo xam sax lu tax fekk yàlla moo lay defal basira waxuma nag ngay jékki-jékki gis nit ñi di ñaaw njot waxuma loolu de dama ne nga góorgóorlu ci taqwa yàlla dafa lay defal lu mel noonu mooy la Amar doon wax seen mbooloo mi romb naa ko rombaat ko xaw ma nag lu fi nekk lu baaxul waaye neexuma ndekete effectivement kan doon wax zul xuway siral yamaani ma nga ca mbooloo mooy bopp xawaarij ya kon borom bi subhanahu wa taala mu ni walillahi ñeel na yàlla mulku samawati wal ardu nguur ak asamaan ak suuf nguur ak asamaan ak nguur ak suuf yépp borom bee ko moom yaxfiru yàlla mooy jéggal li man yashaau képp ku ko soob yàlla na borom bi boolem ci ñi muy jéggal wa yuadibu sunu borom bi nee na maay duma mugal man yashaau ku ko soob yàlla na borom bi musal ñu ci mbugalam mu ne wa kaana allahu yàlla di dafa mas di nekk te du dañ di nekk gafuuran di jéggalaa kon waaye rahiman di ku bari yërmaande mbokk yi doomu aadama ak bu mu mën a doon aay yu mel nii saa bu ko jàngee ci quran daf ko war a dolli courage ci yàlla xoolal koo xam ni ab ay buntam du ko tëj bu dee suñ bureau yi àddina yi wala suñ kilifa yi àddina yi am na waxtu yoo xam ne xalaatoo leen a seeti ba di leen fëgg waaye yàlla mooy kilifa kilifa yi te moom du tëj buntam mukk kooku moom portam direct la portam direct la moo tax doomu aadama au lieu que muy jël nit di ko doxale digganteem ak boroomam yàlla na def direct li ñuy tuddee direct xam ngeen direct na ko def direct fan yii paas suma benn xarit mooy nettali benn waay boo xam ne dañ koo daawa dañ koo daawa ne eh dañ koo daawa ci kay jébbalu ci diw ñu daawa ko ba daawa bi jàll nee na ñu ànd yéeg ci oto bi di dem pour jébbalu ci kooku ci nit te yàlla ni kaay leen jébbalu ci man nee na ñu dem ba ci yoon wi oto bi paan ñu wàcc kurti kurti kurti kurti kurti affaire bi jéeg baaxul benn safoor romb leen fa daal lu xew ñu ne ko mu ñu ne dañoo am benn paan bu ndaw xam naa dafa am lu rocceeku chauffeur bi ñëw daal di yër yër ni ah non affaire bi directé leen ko bu ngeen ko directé ngeen taal ngeen dem bu ngeen àggee doo ko defar lu ngeen defar nee na mu daal di gis ñu rocc fiil bi fa mu waroon a jaar jaar fu ñu daal di koy direct direct mooy jaar mu àgg fa mu war a yegg rek oto bi daal di tàkk mu ne ah man de su ma waay fa nga jëm du ma yegg fa xoolal ko yàlla na la defal tawfiq mu ni man de bu soobee yàlla damay tourné ñu ne ko lu tax mu ni comme affaire bi dañ ko direct mu dem sama diggante ak yàlla bàyyi leen ma direct ko rek mu ne noonu la tourné dafa tourné ñibbi mu ne comme oto bi da ngeen koo direct mu tàkk mu ne sama diggante ak yàlla bàyyi leen ma direct ko rek loolu laa tourné ñibbi gis nga gis nga bu la yàlla namee namee defal tawfiq da lay defal basira gis nga nit ki digganteem ak yàlla na ko direct yàlla moo la gën a jege sa fas wi nga war céqli xam ngeen céq waaye nag ay booy Dakar lañ gis ngeen fas kawar gi li def nii rond boobu loolu la ñu tuddee céqli xoolal ki war fas ni mu ko jegee yàlla moo la gën a jege loolu borom bi subhanahu wa taala ay buntam da koy ubbi suba ak ngoon ee yéen ñiy nelaw ak ñiy taxawaalu ak ñiy wëndeelu ak ñi tëddëggut ak ñi tëdd ba noppi man seen borom maa ngi nii ci asamaanu benneel dara bàyyiwuma fi lu dul ku am looy ñaan ñëwal gaaw balaa fajara xar ku am looy jéggalu ñëwal gaaw ku ñaan ma may la ku jéggalu ma jéggal xadis boobu ñu ngi ci saxiixu muslim allahu akbar moo tax gafuur siixatu mubaalaga mooy foo xamum njéggal fa mu mën a yem rek gu borom bi moom romb na ko moom ca ñoom waxtal ga la amul lu ko fere kaw rahim siga mubaalaga la mooy wax joo xam ne moom fa fi la mën a yem baale fii la mën a yem gis nga de borom bi subhanahu wa taala mu ni moom kuy baale la kuy jéggal la moo tax gis nga doomu aadama bu defee bàkkaar na ngaaw tuub balaa moo dajeeg borom yonent yàlla bi neen texe ñeel na koo xam daa dikk ba yomal qiyaam fekk ay jéggalu yàlla yu baree baree bare ci ay fooyam mooy nit ki mën naa def ak ak ak naafiq daay tuub ñaata ci saxaaba yi ngeen xam ñoo xam def nañ ay njaaxum yu rëy rëy rëy waaye dañoo mujj tuub dugg ci lislaam ay njaaxum yu rëy rëy rëy yoo xam ni wax dëgg yàlla yii moom buñ ko deewaale woon alko waaye nag la yonent bi waxoon amr ibn al aas yonent bi man sama tuub gi baax na mu ne ko waawaaw baax na de mu ne ko man ak caay-caay gi ma def lépp bala maa tuub mu ne ko waawaaw al islaamu yajubu maa qabla wa tawbatu tajubu maa qablaha lislaam moom bu ñëwee lu ko jiitu ci kéefar rek bombardé na ko mu ne ah mu ne ko tuub bu ñëwee lu ko jiitu woon ci bàkkaar da koy bombardé gis nga de moo tax kon borom bi kuy mën a jéggal la sunu borom mu ni sa yaquulu dana la wax sa yaquulu dana wax almuxallafuun gaa yi nga xamante ni ñoo ña tardé woon keroog ba ñuy dem sulhul xudaybiya dañoo bañoon sunu borom ni gaa yi danañ wax naan idan talaqtum su ngeen déparé ila maganima jëm ci màng li taaxuduha ngir jëli ko daruna nattabiakum bii yoon moom bàyyi leen ñun ñu topp leen gis nga bi aaya ji wàccee dafa xaw yi suturas naafiq yi sahaaba yi xam ni diw ak diw ak diw ak diw ñoom demuñ woon kon ñoom la aaya ji waxal léegi nag pour ñu réccu ñu wallaay ñun réccu nañ lañ doon def wallaay ñun nangam di wax di waxtu waxtu ba ni leen nag bëgg nañ bii yoon bu ngeen dee dem sax ñu ànd ak yéen bii yoon lu xew bi gaa yi defee sulxul xuday bi ba noppi yàlla nee na dama leen a gërëm baaxal seeni xol jéggal leen seeni bàkkaar tàbbal leen àjjana mu ne loolu mbirum àllaaxira waaye mbirum àddina nag dig naa leen gi ne xaybar gii ngeen gis ay juif dëkk fa mu amum koom-koom lool alal am fa yàlla mu ne dinaa leen tàggat ba ngeen caw leen bañ bëgg a dee génn leen foofa jël alal ja xanaa boobu de neex na moom léegi nag ñuy préparé pour dem ca booba gars yi commencé naan ñun kay liñ defoon xamul ñu ñu ko tax a def ñun kay réccu nañ fekk li ñuy wax dara du ci dëgg dañoo dégg affaire ya màng ma màng mooy julit ñi bu ñu xeexeeg seeni noon ba gañe leen lañ ca dajale lépp moo tudd màng allahu akbar mbokk yi xool xeetu lislaam yi leen yàlla jagleel gis nga bu njëkkoon ci lislaam yonent yàlla yi ku masaan a xeex ak sam noon comme li ngeen dégg waxatala daawuda jaaluuta wa aataahu llahu mulkal xikma daawud gañe na jaalut ñu gañe gañe seeni màng gis nga matériel yaag jaasi yaag lal yaag or baag jama baag lépp dañ koy jal taal ko kenn du ko jariñoo taal suñu xeet wi nag yàlla jagleel ko suñu xeet wi ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonente bi naan utaytu xamsan lam yutahunna ahadun qabli yàlla jox na ma juróomi yëf yoo xam ni mësu koo jox ab yonent bokk na ca mooy yàlla daganal na ma ku ma xeexal ba gañe la jël sa màng dem foo julli fekk foofay jullee kaay ba te bu njëkkoon église ba rek ngay jullee ji gis nga de ku ma ni ku ma ne ku ma ne ah yow ñun ngay fonto buñ paree fii ci yow lañ jëm si un mois da ngay tëdd doo nelaw guddi gis nga yonent bu waxaan e yéen xaybar su ma paree fii ci yéen laa jëm si yonent yàlla bi nee na weer dañ koy toog tiit duñ nelaw guddi nu sirtu bi roox bi masirata shahrin allahu akbar gis nga de borom bi subhanahu wa taala mu ne gars yi dañ naan zaruna nattabiakum bàyyi leen ni dinañ leen toog suñu borom mu ni déedéet yuriduna dañoo bëgg ay yu baddilu ñu soppi kalaam allahi waxi yàlla dogalub yàlla kalaam fii alqadr lay tekki dogalub yàlla mooy li borom xam-xam yooyu yàlla wax na ko dëgg la ay wax la waaye wax ja ab dogal la dogal bi mooy yéen ñii laa jagleel màng ma kon suñ leen bàyyee ñu topp leen danañ ca am te waruñ caa am la qadran wala sharaan bu dee ci wàllu dogalub yàlla yàlla dogalu ko bu dee ci wàllu sharia sharia tamit bañ na ko ndax ay naafeq lañ suñu borom ni ko qul wax leen bañ dégg ni lan tattabiuna yéen du ngeen ñu topp kadalikum nii ma leen ko waxee qaala allahu min qablu noonu la ko yàlla waxee woon bu njëkk ndax dogal na ko suñu borom ni fa sa yaqul na nga dégg dañuy wax naan bal li am kay mooy tax suru duuna naa da ngeen ñu koo añaane rek gis nga naafeq yi bi leen julli ñi ne du ngeen ñu topp fee lañ wëlbatiku naan da ngeen ñu koo añaane rek da ngeen ñu koo soxare rek fekk déedéet suñu borom ni bal li am kay kaanu dañoo nekkoon laa yafqahuuna illa qalila ñoom kat déggunu maanaam amuñu dégg-dégg lu dul lu néew fekk yàlla moo dogal ni màng mi bénéfice waa sulxul xudaybiya la woon moo tax gis ngeen bi demee xaybar jëlee nañ fa ci màng lu bare gis nga julliñ bi demee xaybar jëlee nañ fa lu bare bare bare ci alal xaybar jooja nag ca lañ jamee woon saad ibnu muaz ah ba mbir mii ma la wax nii daal di am wala ca ca ca ahzab boog ca ahzab ca lañ jamee woon saadu ibni muaz kon borom bi subhanahu wa taala dogal na ni lii nga xam ni mooy am màng mu yàlla jagleel jullit ñi yàlla jullit ñi kese la ko jagleel naafeq yi duñ ca bokk léegi nag su ko defee dañuy mer dañuy mer am lu leen naqari su ko defee nag gën a fexewaat jëm ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ni qul waxal neel comme ñoom dañoo bëgg fu ñu ànd ak gaa yi rek dañoo bëgg ab dem rek li wala fi naan da ngaa bëggub dem rek sunu borom ni qul wax leen neel lil muxallafina min al arab gaa yooyu ci kaw kaw yeeg naafiq yi nga xam dañoo tardé woon da ngeen a bëggub dem rek ah sa tudaaw na bu dee woote doo ngeen di xaar sa tudaaw na def na leen woo ila qawmin ci mbooloo moo xam ni uli basin shadid dañoo tar lool ñu am doole lañ ah da ngaa bëggub dem rek bisimilah maanaam ñoom dañ doon wane ni maanaam bëgg nañoo dem réccu nañ la passé yàlla mu ni xeex yu metti ay nit ñu soxorte am doole ñi ngi xaar ci seen kanam di leen xaar bu dee da ngeen a bëggul dem rek uli basin shadid dañoo am doole lool ñii nee nañ waa Rome la ah ñii nee nañ waa Furs la ci borom xam-xam yi ak juyoogu yaatu ko dem ci kutubu tafsir yi fekk ko ci waaye ala kulli xaal kum ca mën a doon bépp noon buñ mas a dajeel ci noon yu tari rek da cay dugg al ibratu bi umumi lafdi la bi xusuusi sabab noon yu tar tuqaatiluunakum da ngeen xeex ak ñoom ba gañe leen aw yuslimuuna wala ñu nangoo jébbalu génne impôt fa in tutiyu su ngeen nangoo ñëw topp yutikum allahu ajran xasana yàlla dina leen fay fay gu duun gu rafet waaye wa in tatawallaw bu ngeen wanee gannaaw kama tawallaytum min qabl comme na ngeen wanee woon gannaaw ca sulxul xudaybiya sunu borom ni yuadibukum yàlla dina leen mbugal adaban aliman mbugal mu tar mbugal mu metti kon lii borom xam-xam ñu ne ab nattu la woon ab test la woon waaye aaya ji mbokk yi balaa ñu koy jàll may fàttali suma bopp di leen fàttali ni ñun war na noo góorgóorlu bu baax a baax a baax xoolal waxin wi aay ji wax sa tudaawu na waxu la naafiqi ki sa waa jullit ñi ci lañ bokk ndax ñëpp la ñuy wax waaye ñee ñooy daw ila qawmin uli basin shadid ay nit yu tar te soxor ngeen war a dajeeg ñoom mbokk yi ku nekk ci ñun na natt boppam te yàlla rek tax natt boobu mu natt ko bu échec bu échec yépp na ko natt mu imaginer moom bu doon yàlla da koo nattoo yow tey jii sumu waay ah problème mu jug dem jàngi sama diini sax am naa ko su mu waay conférence nga am fii ma déplacé wu dem sax tayal naa ko su mu waay jóg ci guddi gi julli ñaar raaka sax tayal naa ko alxamis ak altine woor ko sax tayal naa ko waaye yow bu la yàlla nattoo woon nga fekkee jamono joojee nga xam ni dem jihaad amut tànn amut sa bu la neex ay ex demande ay ay ay ay kii nu mu tuddati ay ngànt ak yooyu amul de xam nga lan la benn waaye jóg rek eh yéen waa dëkk bi yonent bi nee na ñoo ngi préparé soldaar su war a dem barab sangam bu subaa xëy si leen amul neex amul naqari amul sama tànk day metti amul dama béy ci tànk amul dama yara loxo déedéet da ngay ñëw rek imagine loolu yow ñooñu ak ngëm yàlla giñ àndaloon nga xamee nit day génn këram di dem ci buntub mën naa bañ a dellu si ñaata yoon ñooy génn seen kër miraas seen bopp ba pare soxna si day taxaw nga ne ko su ma dellu si waatee loolu am problème waaye bu ma dellu si waatut sama lii diw diw amel naa ko nangam diw amel na ma nangam diw séq nañ nangam tool bi su ngeen ko kiyee na ngeen ko xaaj ñetti xaaj jox dimbali ma ci bàyyi diw lijjanti li ngay lijjanti dem sa yoon parce que jàpp ngay doo dellu si waat waaye yiwaat ngëneel la ci bunt bii moom kenn du ko tudd fàtte saxaabi bu màgg ba xaalid ibnul walid kooku moo doon wax naan giñ ñaa ci yàlla ni ñu jekkalub seen ak lu mu rafet rafet rafet yit ma ko ci guddi gi mu sëy si mook ma fanaanee taw te war a xëy dajeeg samay noon ñaari guddi yi ñoo bokk yam ci man te da ko doon giñ na xam nga loolu moom man mi koy wax sax wax ji daf maa jaaxal man ab seet ñu préparé ko ni ma tey lañ lay indil soxna si ci guddi gi kontaan gi nit ki kontaan mu ni mook ma fanaanee tawte te suba suba xëyee damaa war a dajeeg samay noon mu ni ñaari guddi yi man xàmmeewuma ban guddee ci gën a neex te it nag wax dëgg yàlla yomb naa gëm ci ko xam xaalis bi muy faatu da doon wax naan góor gu tàppet ci jullit ñi yàlla boo mën a nelaw boo tëddee su booxoon góor guy deeyee kaw lalam loolu la doon wax su booxoon góor guy deeyee ci kaw lalam ndax moom musul bëgg a dee ci kaw lal dafa bëggoon dee ci jihaad moo tax benn saxaaba defe naa Ammaar ibn Yaasir wala keneen moo ko doon wax mu ni gis nga bu fekkonte ni ñemee cawantey jaasi mooy tax a gaaw a dee mu ni Xaalid day njëkk a dee tey mu ko doon wax Omar ibn Khattab mu ne ko Xaalid mooy njëkk a dee tey ndax fu fu jaase yi reyee ni rek Xaalid dugg na maanaam moom nag xaw ma xaw ma beleen de la ndax du ma wax tul parce que bi muy faat ay jam-jam mi ngi ci yaram waaye man beleen de laa ko mën a tuddee maanaam moom yàlla moo ko bindoon xeetu bindin woo xam ni moo tax gis nga Xaalid def na njaaxum goo xam ni jullit bu ko def bu nekk dañ laa war a yar waxuma la magum folli te Xaalid def na ko ci jamono yonent bi yonent bi folliwu ko lu tax ndax gis nga nit ki léeg-léeg ndekete ay mbaax mbaaxam te loolu bàyyi leen xel buntu bii man ndax yàgg naa koo fàttali nit mën nga koo xam mu def benn erreur fekk am na ci ay mbaax mbaax loo xam ne fompal na ko lu ñaaw la ndax innal xasanaat yuzibna sayyi'aat Xaalid daa jub ab dëkk gars yi nan ko sabaw naa sabaw naa fekk ñoom mun mënuñu wax aslam naa loolu lañ bëggoon tuub nañ ñun xanaa xàmmewoo ñu ñun tuub nañ di Xaalid ñëw dagg seeni bopp ñoom ñëpp ndax daal foogoon ne ñoom dañuy tappale yonente bi da caa mer ba dine allahumma inni abra'u ilayka mimma faala xaalidun yow yàlla li xaalid def dégagé naa ci samay responsable sama yoon nekku ci moo ko gàddu yonente bi mere ko lool saxaaba yi ni ko ten koo folli mu ni déedéet jaasi la joo xam ne yàllaa ko bocc ci kaw noonu yi kenn du ko folli xoolal te lim def waxuma la folli waaye dañ ko ci waroon a yar parce que donte dafa juum nag waaye njuumte dafa rëy waaye nag ndekete lam baax li fomp na la li gis nga même chose moo répété waat ci jamono yi Omar am na benn waay bu ñuy wax Tamim ibn Nuwayra wala Malik ibn Nuwayra muy mag ak rak kenn ci ñoom ñaar maa fàtte kan la ci ñoom ñaar bi ko Xaalid laajee ni ko yow loo wax ci yonent bi ak aj Màkka ak yooyu waa ji sikk sàkk mu ni ko ah ma lay laaj ay islam ngay sikk sàkk mu ni tey laay def lu kenn mës a gis xam ngeen ay was was ñetti tànk yi ñuy tegal cin xaalit di togg reer mu teg ñett ñaari xeer dagg bopp waa ji teg ko remplacé ko xeer ni yow la ñuy toggee reer bi bu subaa yéen ba ma ñëw ci yéen ngeen xam waa ji kawar gi dafa sëqoon bari lool ne ko sa kawar gii laay taalee reer tey nga xam dugal ko dugal bopp bi ci biir taal bi léegi nag yu mel noonu ak yeneen xabaar bi mu yegsee ci julli ñu ñu mer Omar ibn Xattaab di tëbakat dal follil Aboubacar ni ko duma ko folli ndax def na lu ni mel ci jamono yonent bi te yonent bi folliwu ko kon ndeke nit ki mën naa am ay njuumte dëgg la njuumte la waaye nag am na ci ay mbaax mbaax dee gis nga Xaalid keroog bañ demee Mu'ta Mu'ta nga xam ni ci xeex yi gën a metti la bokk
dafa def benn technique boo xam ni keroog jour boobu la ko yonent bi tuddee sayfullah jaasi yàlla ji
lan la julli ñi dañoo yegg si
nekk ñetti junni yéefar yi mat fukki junni ak nangam ñetti junni nu ñuy jàpp d'accord yàlla mooy dimbali waat waaye xam nga lii dafa dafa jéggi dayoo
bu doon ñun ñii la wala gars yi nga xam dañoo jéem a jaay iman iman lu da nga naan moo nañ dem rek buñ deeyee baax na nga rey doomi jaamur yooyu foofu yépp waaye borom xam dañu al xutta xuttatul xitaal technique yi ñuy plan yi ñuy lal pour xeex
tey université yi koy jàngale ci lislaam dañuy tudd nettali bii ngir kéemtaane gu mu kéemtaane Xaalid xam ngeen nu mu def dafa xool mbooloo mi xool mbooloo mi xam ni ñii ñoo ñuy man parce que am nañ doole fuuy nañ réew nañ
mu ni mbooloo mi léegi kaay leen génn leen jàmbaari fàkk tëdd yi mooy ñi nga xam ne ñoo gën a jàmbaare ci mbooloo mi Xaalid génn ca la bokk ñoom Ali ca lañ bokk ñoom Qaaqa ibni Amrin mooy gaa yi nga xam ne ku ci taxaw sawaay boo nee xuux téeméeri nit ñu daw Qaaqa ibni Amrin Abu Bakrin nee na saa bu ma déggalee fasu Qaaqa wi ngexal ci biir sàppe si moo ma gënal junniy nit taxaw wala téeméeri nit Abu Bakar moo doon wax loolu fasu Qaaqa ibni Amrin moom mu ni bu ngexalee rek sama xol bi sedd Qaaqa ibni Amrin day taxaw mu ni yéen génne leen cent personnes ñu ñëw sot sotooma xam nga loolu moom daanaka shibhul mustahil bi Xaalid génnee jàmbaar yi ba jàmbaar yi génn
mu ni damay léewtoo damay léewtoo ak ñoom di leen wër-wërul di leen nax daxal yéen ñi ci des rocceeku leen ñibbi yéen moom dem leen ñibbi rek dinañ leen dab jaar leen yoon tel ak tel dina leen dab
téeméeri nit cent personnes xam nga yéefar yi ba ñu nekkee fukki junni bu ñu seenee jullit ñi nekk ñetti junni dañ leen di xeeb kon bu ñu rocceekoo ba nekk téeméer xanaa dinañ gën a tuuti de gaa yi ne xaaral ñu sàqami leen te jóge fi dem suñu yoon léegi xaaral di léewtoo xam nga léewtoo mooy lan mooy léegi au lieu que ñu ñëw tam tampoo di xeex xaalis danaan leen génn leen ku ngeen gën a jàmbaarle man ma génne ki ma gën a jàmbaarle boo seetoo Badar ak yeneen xeex yi noonu lay faral tàmbalee su ko defee ñoom jàmbaar dañ gën a génne bu ñu Qaaqa ibn Amrin moom fi mu taxaw rek lay taxaw moom moom sax daanaka kenn du am remplaçant li gaa yi wax remplaçant moom du ko am moom kuñ ma gaa yi mën a génn rek mu ñëw mu rey ko su ko defee loolu day dem ba gaa yi commencé tiit muy wër-wërloog ñoom di wër-wërloog ñoom ba nax leen rek daal di dem départ mel ni kuy daw ànd ak mbooloo mi dem ñibbi xam nga comme ci dégg-dégg da nga jàpp dañoo daw fekk da doon sauver doomi jàmbur yi parce que dañ doon wuti doole.
waaye xam ngeen jigéen ñi ñoom seen gémmiñ ñi ñoom daanaka ay musiba moom ñoo ko gën a mën a wax góor ñi amul lu ñuy fayee julli ñi lu dul bi ñu yegsee Madina jigéen ñi génn di leen tàccoog di leen sëllax suuf tàppet yi ngeen doon dégg naa da ngeen a daw tàppet yi ngeen doon ponkal yu doy ni yéen xanaa du ngeen ay góor xoolal di leen xas yonent bi yëg ko daal di génn daa ne déedéet du ngeen ay tàppet de lastum bi furraarin daw leen de walakinnakumul kurraarin da ngeen a arrière wuti doole te fii la doole ji nekk
keroog la yëkkati Xaalid ni ko yow moom bu yeboo nga yëg ne yaay jaasi ji yàlla bocc ci kaw noonu yi gis nga xeex boobu neuf jaasi damm na ci loxol Xaalid te jaas yi ak ñoom seen jaas yi ni mu dëgëre di xeex ba mu damm mu dole di xeex ba mu damm muy juróom-ñeent yooyu ay yëf ay yëf yëfaan la yoo xam ne yow boo koy fàttaliku
di nga xalaat ni aaya ji war naa tax ñu góorgóorlu bu baax sa tudaawuna ila qawmin uli basin shadid jihaad mbokk yi rëy na de saa boo ko xalaatee rek loo nar a def ci mbaax di nga am courage am sunu borom ni wa in tatawallaw bu ngeen wanee gannaaw nag kama tawallaytum min qablu comme ni ngeen defoon ca jamono jële yuadibukum adaban alima léegi nag laysa ala al ama xaraj silma xamam sunu borom mu ni moom kenn topp ko dara silma xamul te dem jihaad waaye silma xëy dañ doon dem de comme kan comme kan ibni ummi maktub silma xama doon nodd nodd ci xaadisiya dañoo wax daa ñëw ci Omar ibn Khattab ni ko ni ko waxuma damay dem de mu ne ko may yore drapeau bi
Omar ni ko yow yow doo gis noo yore drapeau mu ne ko du ba tey gis waaye xolay gis jox ma drapeau bi
xolal xolal
moo tax wallaay gis nga ñii moo tax man daal balaa sama xel mee keey may bëgg a wàccu rek ñuy jël ay nit yoo xam ne ci gannaaw saxaaba ya di leen tëkkaleeg saxaaba ya yow sa xel mi day teey sax yow faf wala ala al aaraj xaraj koo xamante ne tànkam dafa làggi suñu borom ne yoonam nekku ci moo ne borom tànk yu làgg yi dañ doon dem di comme kan
ah ah amr ibn al jamuux amr ibn al jamuux da doon soox benn xeetu soox boo xam ni boo ko séenee muy dox sax sa da ngay bëgg a jooy ndax soox bi ni mu mettee
yonent bi woote jihaad muy damay dem jihaad doom yi ñëw kalaame koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko yow ci aaya ji nga bokk yàlla wàcce na la mu ni ko sama tànk bi may soox di ko lagaj lagaji ci àddina dama ko bëgg a lagaj lagaji biir ajana ko ñépp yonent bi ni bàyyi leen ku mu dem mu dem dal di jihaad shahid yàlla mu ni te ñooñu wàcce nañ leen ñooñu moom jihaad waru leen wala ala al marid xaraj ki feebar tamit sunu borom mu ni bàkkaar amul ci moom xam naa bu doon jamono ji ndaw nga gis ñu feebar ñu bari
bu doon jamono ji billahi kon nga gis ñu bare bari ñoo xam dañuy feebar xaw ma dañuy feebar xaw ma dañuy feebar feebar lu sax su boobaa ndax bañ a dem jihaad waaye nag yàlla xam sunu borom ni wa man yuti allah képp ku topp yàlla wa rasulahu akub yonenteem ci nangoo def ay ndigileem bàyyi ay tereem yudxilhu yàlla dana ko tàbbal jannatin ajjana joo xam ni tajiri day daw min taxtiha ca suuf ga al anhaaru ay sew ne pale boo xam ne yàlla dala koy tabaxal ci kaw ndox
foog naa waa àddina bi yépp xam nañ ni tey ab buur defar na benn sato ci digg ndox mu nekk kéemtaan ba tey nit ñi di ko visite di ko ziyaara ji ndax kéemtaan la àjjana moom du yow doo nekk buur doo ca financé doo ca ñàkk xaalis ni nga ko am sa morom da dul yéemu ci yow parce que da nga kaa am mu am ko maanaam gis nga fi nekk di àjja àddina yi ñuy tiitaroo wallahi boo demee àjjana daanaka moog biskit moog paquet biskit gis parce que biskit am na sax yu jar juróom léegi ni mu yombee àjjana noonu la mel. jannaat ay ay la ci yàlla defar ay ay milliards yi milliards yi kër yoo xam ne yépp yàlla da ko tabax ci kawum ndox nga xam ne li doon yéemu waa àddina moom ki gën a ñàkk lu mu am ci tiyaaba mën na koo am ci biir àjjana ja yàlla sunu borom booleem ci ñooñu sunu borom ni wa man yatawalla ku wane gannaaw nag yuadibuhu yàlla dina ko mbugal adaban aliman mbugal mu metti lool nu ngi ñaan borom bi boole ñu musal ci mbugalam di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira yàlla yàlla dëgëral nu sunu ngëm ba ñu mën a mel ni saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain yàlla yàlla musal ñu ci ak nifaaq mu dug naafiq te defal ñu tawfiq ci dégg alquran mu nekk lool li sunuy xol wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain